asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte di fas yéene ànd yéen ci ñaan yoo xam ne day jàppale nit ki ci kàttanu sëy ci kàttanu sëy incha allahu rabbi am nañ ci nag ñaari anami ñaan ñaari anami ñaan bi ñuy njëkk indi mooy ki nga xam ne dafa jëm mag ay atam bari lool te ku tudd at yu bari saxel dem ci kàttan guy wàññeeku ñoo ànd wa man nuammirhu nu nakkishu fil xalq ak thumma jaala min baadi bon dufan wa ba donc kon at yu bëri moo kàttan guy wàññeeku ñoo ànd kon ki ay atam bari ba ay kàttanam wala ba ak kàttanam di wàññeeku ci wàllu sëy lan lañ koy baaxee mbokk yi kooku su bëggee yàlla may ko kàttanu sëy na def li may bëgg a wax ginnaaw audu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani irrahim ndax gépp ñaan itam loolu lañ koy ubbee bu ma fàttee ba waxuma ko itam seen xel na ci dem ñaan goo gis audu billahi min alcheytaani arrajim moo koy ubbee ak bismillahi arrahmani irrahim solaatu ala annabi moo koy tëj muy allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ko fàttee wax ci benn émission wala benn rubrique rek na ko seen xel mottali kon su waxee audu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim day jàng fatiha benn yoon fatiha mooy bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin ba ca wala dallin day jàng benn yoon fatiha su mu teg ci solaatu ala nabi ñett yoon muy trois fois salaatu ala mooy julli ci yonente bi comme nit ki ne allahumma salli ala wa sallim wala beneen formule bu ko defee rek su jullee ci yonente bi ñett yoon <clears throat> mu daal di ciy teg baat yi may bëgg a wax ya qawiyu yaa matiinu yaa qawiyu yaa matiinu moom lay wax benn yoon su paree mu teg ci ñaan gi may bëgg a wax muy allahumma kaburat sinni wa daufat quwwati fa innahu la hawla wala quwwata illaa bika ya allahu moom itam benn yoon su paree mu daal di tëjee solaatu ala nabi bu mu man incha allah lii daal ku koy faral di wax bis bu set kàttanam dina yokk su fekkee dafa mage woon ay atam bari mu age ba taxoon kàttanu seem wàññeeku suy def lii kàttanam dina yokk ma fàttaliwaat leen ni muy def mooy day wax audu billahi min alshaytaani arrajim di jàng fatiha benn yoon tekki solaatu ala nabi ñetti yoon maanaam julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñetti yoon muy trois fois teg ci yaa qawiyu yaa matiinu benn yoon teg ci ñaan gi allahumma kaburat sinni wa daufat quwwati fa innahu laa hawla wala quwwata illaa bika ya allahu mbokk yi ñu ñëwaat ci baneen ñaan bii nag moom day faj néew kàttan ci wàllu sëy ba muy faiblesse sexuelle moo xam ki dal nag dafa age wala ki mu dal jeune la xale la waaye daal képp kuy yëg kàttan guy wàññeeku néew doole ci wàllu sëy muy faiblesse sexuelle rek kooku ñu ngi koy sant ñaan gi ñuy bëgg a wax incha allah dina ci baax lool muy ginnaaw audu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim day jàng suurat alkawthar suuratul kawthar suuratul kawthar muy inna aataynaaka alkawthar fa solli li rabbika wanxar inna shani aka huwal abutar ñeen fukki yoon ak juróom muy 45 fois moom lay jàng saar boobu su paree mu teg ca lii may bëgg a wax subhanaka yaa qawiyu yaa raxmaanu yaa raxiimu ñaata yoon la koy wax juróom fukki yoon ak juróom ñaar muy cinquante sept fois euh, bu ko defee mu daal di tëjee solaatu ala nabi muy allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim moom itam su koy faral di def lu bëri daal incha allah dina tax ba euh, dina yëgaat boppam kàttanam googu wàññeeku woon incha allah yàlla dina ko ko yokkal ma baamtuwaat ko ki nga xam ne day yëg néew doole ci wàllu sëy muy faiblesse sexuelle su bëggee saafara loolu ci kàttanu yàlla lii lañ ko digal muy lan na a audu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim daal di jàng suuratul kawthar muy inna aataynaaka al kawthar ba saar jeex mu jàng ko ñeen fukki yoon ak juróom muy quarante cinq fois su mu teg ci baat yi may bëgg a wax subhaanaka yaa qawiyu yaa yaa raxiimu baat da koy wax moom itam juróom fukki yoon ak juróom ñaar muy 57 fois daal di tëje salaatu ala nabi muy allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wala beneen formule beneen anamu jullin ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu mu man rek mu tëje ko ko na koy faral di bëril rek amul lim na koy faral di bëril bu dee bis mu def ko wala ñetti fan yu jot mu def ko en tout cas daal nu mu ko gën a mën a bëri rek ci kémtulaay kàttanam noonu lay gën a baaxee mbokk yi ñu leen di ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin di seetaan suñuy vidéo di commenter di aimer ndax fi la njariñ yi gën a yaatoo jaa ngeen jëf wasalaam